sëñ bi ma fekk si di kenn ci président Pape Diop ñu koy wax sëñ Cheikh Mbacke di nuyu kilifa yi mu toogandool tey ci jataay bi di ay rakkam di leen ziyaare di nuyu soxna Ami Cheikh mii nga xam ne sama lépp la sama rakk la sama xarit la am mbégte lool nag tey ñëw teew fii ci Pouf di ànd ak sëñ abdu Mee ànd ak soxna Ndey Asta si la ñu def délégation tey ñëw fekk si fii sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu di la massa coono di la jaajëfal ndax say coono ak say yëngatu ci jàppale président Pape Diop ñun xam nañ ci dara gëm nañ ne doo politique kilifa nga waaye kilifa gu mat kilifa nga kilifa gu jaboot nga parti bi lépp lu ci metti waaye wala mu naqari ci waaye soo ko su fajuwut rek da nga koo yëgul kon ñi ngi lay sant di la gërëm tey nag ñëwuma fi sax ci turu politique dama fee ñëw ngir jaajëfal la dama fee ñëw ngir sàkku ci ci yow ñaan ndax dëkk bii dëkkub ñaanukaay la dëkk bi dëkkub yaakaaru la ma ñëw indi tey sama liste yi di sàkku ci yow nga ñaanal ñu suñu liste bii nga xam ne ci lañ nekk di liste bokk gis-gis suñu borom may ñu ci ndam moo ñu yokk yëkkati ñu jóge tuubaa ñëw tey fekk si la fii ginnaaw bi ñu la nuyoo massawu la list bii moo ñu tax a jug Mbàkke Bàlla di ci sàkku sa ñaan jox ko sëñ bi sàkku ñaanu sëriñ si ñu fekk si tey fii sëriñ si ñu fekk si fii tey am nañ ci yaakaar bi liggéey jotee liggéey nañu département bi lu ñu fi war rekk def nañ ko sant nañ yàlla bu baax liggéey bi yomb na yéen kilifa yi ci jàpp tamit di ñaan ci zaahir ak ci baatin kon kenn ku ne bu ñu demee ba war a tëj campagne bi war nañoo ñëw sukk ci sa kanam sàkku ci yow ñaan comme tey la woon tëjtal campagne bi wër naa daaru minam gépp kër kilifa diine yépp dem naa fa yóbbu fa list bi ñu ñaanal ma ma dem sama kër càmmiñ yee ñu teral ma teeru ma ak mbégte mboole wàccee fa ay kaamil togg fa ay añ ñaan fa def def def def jotaayu kuréel jàng xasida togg ay añ jox jox jox doo ngay yóbbu ca daara ja ñaanal ma ndax list bii am ndam ci département bi kon sëñ Cheikh kontaan naa ma ñëwoon nit nag fekk fi sama responsable ndax soxna Ami Cheikh mi ngi ci liste bi ñëw indi rek ay palaat jox ko jigéen ñi ndax man toujours sama politique dama ko bëgg di jëmale ci sociale social bi bëgguma mu doon loo xam ne da ngay jox nit ki xaalis diaboliser kook askanam ba tax na jënd naa lu ma 300 palaat distribuer ko ci mboolem mbootaayu jigéen ñi fu ma dem nag li ma leen di wax mooy du ma jël fukki junni di ko jox kenn wala ñaar fukki junni su ma leen joxee fukki palaat wala ñaar fukki palaat wala ñeen fukki palaat da ngeen koy def ci seen kees dëkk ba képp ku àbb palaat yi yëkkati 2000 wala 1000 francs teg ci kees gi su matee dara ngeen dem jëndiwaat dolli ci ndax nit boo ko bëggee jàppale danga koy wan yoonu liggéey ak yoonu am mu xamal boppam nu nu muy nu muy wutee kon sëñ bi nag ñu ñaanal xam naa dañuy tënk kàddu yi rek. Eh, di dalal suñu gan gi muy soxna Mariama Sylla Mariama Touré ak soxna Sylla mi mu àndal soxna Absa Sylla mi eh, bi ñëwee tam fekk nañ fi ay kilifa fekk nañ fi sëriñ Abdou Khadir Mbacke moom sëriñ Baara Mbacke Pofdi fekk nañ fi itam sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Baara Mbacke Pofdi fekk fi itam sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Amidou Mbacke Pofdi. Eh, soxna Mariama ñu ngi lay dalal jàmm eh, di wax tuuti ci li nga xamante ni mooy solo bis bi tey li ko tax a jóg mooy président Pape Diop Pape Diop nag matuma ci moom seere ndax dañoo jaxasoo day sama wëllëre di sama xarit di sama lu baree bari ci man eh, bis nag di waaj ñëw boo xamante ni soxla na bu soxlaa nag ñun ñëpp dañ cee war a taxaw suñ kemtulay kàttan ndax nun amuñu lu dul dëkk bi muy nga xamante ni moom la ñu suñ maam bàyyeel muy sëñ Modou Xarim Mbàkke foofu di ah politiciens yi fi ñëw bari na waaye moom lañ fi njëkk gis mu ñëw tudd li nga xamante ni moo yitteel sëriñ bi muy jumaa ji nga xamante ni moom lañ naal ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi suñ borom yàggal lool tam wér dañ yàgg ci ginnaawam bi mu ñëwee dafa tudd jumaa ji yëkkati ab liim def ko ci ne maa ngi ko ji def ngir itam ngir yàlla ak itam ngeen ñaanal ma ci barke dëkk bi ak borom dëkk bi ak ñi nga xam ne ñool fi seen bàyyi seen maam bàyyi àndoon nag beneen xa mbokk taalibeem boo xamante ni ginnaaw bi moom itam jëf na ci kon lii ñu nekk daa mel ne ñor na ko kon ñu ñu ngi leen koy santal ñu mboolem dëkk bi ñu ngi koy sant bu baax te fas yéene cee taxaw buñ ci àggee ci bis ba nag lii nga xamante ni mooy lay soxla muy ay xob nga la ñun ñëpp nañ ko ci jàppale suñ kemtulaahi kàttan Eh, leeral naa ko ci benn estati boo xam ne def naa ko ci ñi nga xam noonu la wootee wax naa ko itam ci rajo yi ngir leeral ko eh, mbokki jullit yi ak ñi nga xam ñoo war a woote ñëpp kon lii mooy li nga xamante ni moom lañ am ci kàddu yoo xamante ni moom lañ ko ci sànni te itam di la soññ nag itam nga doolee góorgóorlu bu baax a baax soxna yi ci bitti itam ñi nga xamante ni fi lañ jëm ñoom itam wax dëgg yàlla bis yëf yi ñor na leen lool ak mboolem ñoo xamante nekk nañ ci biir dëkk bi kon ñi ngi sant suñ mbokk yi nga xam ne suñuy rakk lañ waaye nag teewut itam suñuy xarit lañ di leen sant ñoom itam di leen ñaanal ndam li yàlla nañ ko bokk ak ñoom bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barki Cheikh Khadim président yi ngay wut yàlla na ko suñ borom jàpp na bu gënee ci yow ci kàttanu suñu borom tabaraka taala barki Cheikh Khadim sëriñ ki nga xamante ni mooy borom dëkk bi di sëriñ Ahmadou dafa waroon a teew waaye dafa nekk ci ay yitte yoo xamante ni moom ñoo ko fi teewal kon nag moom itam nee na mi ngi sant président Pape Diop bu baax a baax ndax xaritam la wëlëreem la moom it sëriñ Ahmadou Mokhtar moo leen boole Eh, kon xaritam la bu sañoon dafiy teew waaye daa nekk ci yeneen yitte waaye nee moom itam ñu ngi ñuy sant mi ngi sant mbooloo mi di leen gërëm di sant soxna Mariama di digal itam ñi nga xamante ni ñoo fi teew tam sañ leen a digal ñu góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla ak liggéey te sax ci jub di jëfandikoo ndigal yi tey moytu tere yi te ànd ak seen sago ci li nga xamante ni mooy waaj a ñëw ndax ñi koy bokk bari na waaye ñëpp njabootu sëñ Tuubaa waalañ ñi ci ëpp kon nag nañ ko def nañ ko war a defee ku jël ndam li xam ne jël ndam li waaye nag bu mu am benn violence nañ def lépp ci jàmm ak salaam ak sutura akuk akuk akuk dal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah